comme like wàllum ñi nga xam ne ñooy physically challenge laago yi tamit dafa am solo comme loolu ah, si kaw la war a doore si suñ government bi parce que léegi-léegi dangaa dem yéen a liggéeyukaay yi nga xam ne laago yi fu ñoo amee access pour éeg si kaw stairs bi amu fa léegi-léegi nga dem yéen a lopitaan wala léeg-léeg nga dem yéen a government institutions laago yi su ñëwee si si suuf ah, like si suuf rek la ñoo mën a station seen boppa because amuñ any entrance boo xam ne moo leen a dimbale pour ñu éeg si kaw so loolu noonu yëpp suñ ko adressé comme ñu woon laa koy ne yéen ah, si ñun ngeen bokka ñoom tamit dinañ am fit like pour such election su taxawee ñoom it ah, ñu mun a contest